gëdd weg nañ leen ngalawaay nañu góor góorlu ci jàppale ñu parce que yenn excès yi ñuy yi gis yenn ëpp li ñuy gis bu dee da ngay intervenir ci waa opposition amul lu ko justifier fii ci réew mi kon yii ma wax nii dañu am cër bu réy ci la war a saxal jàmm ci réew mi fii nag ak 2024 Macky Sall na xam ni dootu ci ko may fu mu noyee